lu toll na wéeru koor. dëgg nga ko góor wax ji nañ ci génn ba mu set. sa diggante moom la ak pap sa pap foofu laa yem ak nag. ndawul naa ma bisaab rey ma xanaa doo ma ko xañ. cat. Thial yow xanaa yow seen waa kër yaruñu la yow da ngay lekk di wax rek. te toogal ak mag. nga ne caat nga na waaye dara bu yow yow lii nag nga ko ne. yow yow woo yaa yaa ne da nga may indil ndogu ma toog fii la xaar xaar na ko son 18 heures ba 19 heures mun maa fex ba gis dara. c'est que maa ngi doon ñëw de. waaye li maa ngi doon yow kuy reer lu muy ñëwee. waaye mosoo ñëw mosoo ñëw. toog kay dinaa ko def ndax lii may jaataaroon kay dinaa li ngay def du ko def as gor ci kàddu lañ ko man a jàppee yow nag nga mën a waxee dinaa la indi ndox ba ñëpp toog di xaar fee laa toog jant bi tamponné sama kanam bi xamul fenn foo war a def di as gor du ko def nit ci kàddu lañ ko mën a fonkee. jëla kudu gi lu jëla kudu gi li def kenn du ko def kenn du koy eh, yow nii la ñuy dugg see si këru jaam. waaw ah. yow ni nga duggee si gi gis nga ko. yow xam nga kii li mu def. def. xam nga kii li mu def. eh, eh ah. Ah. ma fontoo de dégg nga yow. daam daam daam bu ma jaawalee ginaar gi. moo xew daam bu ma jaawalee ginaar gi boo may wokk. bu ma wokk bu ma wokk damaa weex bul ma wokk. xam nga lan la eh, kenn wokk la fa. eh yow mënoo rek. xam nga lu mu def. fii la wane xaw ma ñaareelu papa ah daam yaa ngi gaañ de fii la wax dafa am ñaareelu papa. ay loxoom kii la wax ne ñaareelu papaam da koo sonal da nga ci kër gi di ko fëtal di ko xët mu ngoon jotee naa demal sangu ji après ci li ma wax ne dafa a yow can bi yow. billaay woon dëgg eh. si ne dafa daf koo bëgg a tëj. Oh. waaw daal nag a kii xamuñu fii la ne da koo bëgg a tëj dil daana léegi daa bëgg daa bëgg ma photo ak moom su ko defee mu fexe ko envoyé siñ bi mu jot ci. photo waaw eh tëjil lii yow. billaay waxul eh, lii. sa kanam du meer jàmm doo leen ko def tijjil ah ok kanam gi maa ngi koy doog a xàmmee. yow yow kii yow. Ah, mana yow yaa taxaw ak nii. bi mana mana mana kay maa sol ci rafet dugg si nii mana. waa daam. Mhm. daam yow kon yow daal gàcce nga mën a rate ci biir kër gii man chaque jour. ci ma ne nga déglu bu may wax danga may déglu laa wax kii lu mu wax yëpp dëgg la ndax photo baa ngi nii moom mhm. moo ci ne moom mii la ndax yëre bi même yëre bi la même kanam gu ñaaw gi la. moom mii la kanam gu manku gii la de. weeram yi ma ne tablette nen nii yow yow yow li ngeen doon ne man daal mi yow nit la yow. kii da nga koy génn kër gi mayu jaaw. génn kër gi la eh. sol sa doon bàyyi doon wax. Ah. day am da ngay génn kër gi aywa. eh kunu randal. kunu si lii bu laal ginaar gi la fi réer. caat yow eh caat bàyyi. yaa yóbbu caat bàyyi. yaa yóbbu tee jugal jugal. ah. doo ma dagal fii wala poxu daal ginaar yow yow. Eh, yow laa yàqal fii eh eh. bàyyi daal yaa jugul fu booy sa kanam ko teg yow bàyyi daal lépp yaa ma teg lépp dimbali ma dal yaa ma lépp a kii yow yow bàyyi faa mën na ma yàq sama ndogu yow yaakaar sama reer yow foofu nga reer xam naa yow xanaa nga borom ndogu kii yaa ma boole ak moom yaa ci ngi mu la yow ndogal yow ndogal tax ngay ngay tiraane seen waa kër di ñëw fii nii yàq seen dër ko damay ñibbi kay damay ñibbi li nga mel damay ñibbi li nga def kenn du ko def amoo loo fi def man ko fay xel ma kenn waaye avancé nga ma xel ma kenn mënoo dem léegi yem sa kër. waaw loolu ma trop waaye foo ne ma ne ko. ah yow lu ma dal nag yaa ma ko def. booy mënu ma booy waaye ay wax yu bëri moom mënu ma. mooy seet loo may fréquenté yow. ma kaa xañ ba ni ma xañ ay reer. yow war ngaa taxaw fi wax. sëñ bi ak bàyyi xaar bu ni gën ñëw xañ ma sama ndogu nga ñëwaat indi ma yeneen problème yoo xamante ni. jël comprendre lépp yaa ma ko teg yaa ma bari ah, sax. lii sa fii leen toog nga may joxe idée yu ñàkk fëri kenn sam sa bopp rëy bi xam naa ko ci kër yi bëri na. ci kër yi tegal guddi. bàyyi lii ca tegal guddi. bàyyi lii yaa yow. ca tegal guddi. bàyyi daam bul jot ca tegal ca tegal guddi.